مولد موسم مبارك محترم تسيمه ينهاتيم على سوي تقدمي تحسيمه بسنتي يقودنا للجنة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 xaside yi nga xamante ni moom la ñu ubbee léegi mooy ñetti naari góor yi sëriñ Tuubaa Seexul Xadim yi nga xam ne fu ñu ko dégg xel yëpp demaat ci alayhi salaatu wasalaam loolee lañ jub siwaat muy guddi yi nga xam ne mooy guddi yonente bi alayhi salaatu wasalaam mbokk yi téway bi bo ngeen gisee xam ahibaayul khadim li no soti diinal xadim ñi ñaanal ki nga xamné moy sunu sang bi Cheikh mohammed Mouhamadoul mustafa suñu borom gën ko dëgëral katanal ko ci barkeb sëñ Tuubaa khadim ci li nga xamné ne ne ko tey wut bis bi ak benn bis bis bi nim koy dundalé képp ku ñëw Taïf xam na ne dana ko dundal ci dundal gi nga xamné moy sunna mbokk yi xasida gi suñu xel da cay dem mooy ahyaytu mawlidan nabi min assasi waxaadali fawqal munafi talsasi ki nga xam ne mooy njëkk a gàmmu te bàyyi xel yonent bi alayhi salaatu salaam ba tax kii nga xamante ni mooy Cheikh Ahmadou Moustapha ànd ak ahibaalu xadim ak rakam ju tedd ji nga xam ne mooy Cheikh Ahmadou Lamine Bara ànd ak mboolem section yi ñu ngi sant bu baax ci teewaay bi tey ñaan suñu borom dëgëral leen kattanal leen ci barkeb Sëriñ Tuubaa Cheikh Ahmadou Lamine mi ngi nii toog Cheikh Ahmadou Bassirou Mbacké Mohamed mi ngi nii toog soxna moom mi Mbacké Mohamed mi ngi nii toog Serigne Ndiaye Gueye ak mboolem seex yi ak ñi ñu àndal ñoom itam bu leen tuddee rek tudd nañ mbooleem ahibaalu xadim li na su dinil xadim mbokk yi bis bi ñuy waajal mooy guddi yonente bi alayhi fii ci Taïf ren nag day tollook fukki at ak benn bañ ko tàmbalee def ak léegi fii nag képp ku fi teew da nga xam ne gàmm nga guddi gi Yonent bi alayhi salaam mooy gàttanu gi gunge gi ànd ak moom ba bës set wecc mbokk yi danañ jël kàddu jox ko ki nga xam ne mooy Cheikh Mamadou ba Bassirou Lo mi nga xamante ni mooy taxawu barsan bi at mu nekk mooy wax ci kàddu Cheikh Mamadou Moustapha buñ ci bàyyi ko Serigne Moustapha Mbaye dana wax ci turu Serigne Ba Amadou Lamine Baara Mbacké ak juróomi regroupement yi nga xam ni miin na leen ñu ngaan liggéey bi mel ni juróomi waxtu ci ñoom mbokk yi Serigne Cheikh Kane dong dina jël ci turu section Taïf yëpp incha allahu taala waaye buñ ci bàyyi ko soxna day Mariam Guèye ci turu soxna Mamoussa Mbacké moom it dina jël kàddu ci yi nag soxna moom yi Mbacké kon bala ñoo sori ñu jël kaddu gi jox ko si Amadou Moustapha Bassir Lo mu daal di jël kàddu ko bismillah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Cheikh Mamadou Moustapha bi ñëpp. ñene mi ngi jital ci nuyu bi nak mboolem ñun l'islam ak fuñ fi mëna ne te lolé mu di ci jital ki nga xamné mo fi nekkal cheikhul khadim te nekkal fi képp ku nekk ci lu bax muy cheikh Mouhamadul Mountakha mbaki serigne baa koy nuyu bu bax te diko ko bu bax te diko ko ñaan bu baax liggéey bi mu legel serigne touba yàlla nako amé nam ko bëgg tan ànd ko ak mom ak ki nga xamné moy jëru ñam di cheikh Ahmadul Muxtaar mbaki mi fi nekkal cheikh mustafa serigne cheikh mbaki mom serigne mbaki Madina ak cheikh Abdourahman mi nga xamné mooy jëwriñu barab bi di Taif mu sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké Gaynde Fatma noonu lay nuyu nag mboolem njabootuk sëriñ Touba gépp ak mboolem njabootuk lislaam leneen la ci topp nag mooy nee mi ngi fàttali bés bi nga xam ne jàpp na ne kenn fàttiwu ko jàpp na ne ñenn fàttiwuñ ko mooy bisub laylatu mawlidi nabi di bisub ngën ji mbindéef di bis boo xam ne bu sëriñ Touba fonkoon la bu mu daan taxawul boppam la bu mu daa digle la ba noppi diggee ca lu bëree bëri Cheikh Moustapha Mouhamed Mbacké nag nee mi ngi nuy xamal ne bis bobu deugmal sina insha allah di laylatu mawlidi nabi muy xamalat ñep ne fi fi taif lako fasiyene defé nam ko da defé insha allah taala ànd ko ak non mu ci won ak kep ko xamne mom Cheikh Moussa moy si burtu ci seigne Touba neena mi ngi fedd li ndigal lolé di ndigalal bés bi nga xamne moko digle won wax ne mom ak 20 muharram moy ñaari bés yi nga xamne digal na kep ko xamne moy mooy burtu seigne Touba nga gën ko fonk bu baaxa baax neena nak mi ngi sant ñepp ci li nga xamne mo wessu rawati na 20 muharram ak bisub Serigne Touba bi di eh, fukki fana ak ñatt ci safar ak bepp ndigal bo xamne ne dox na ci diggante bi taxaway yi ci taxaw yépp Cheikh Moussa neena sant na ci bu baaxa baax neena nak mi ngi fatali bis bu baax te diko ko te diko woté nak woté bo xamne bëgg na képp kuy wuyu ak fo mëna né te sun borom dogal nga mëna aksi neena nga ñëw fi fi Taif loolu nak ñane ca kanam nga xam mom la dénk ñom la dénk legge bob nee mi ngi koy wat bu baax a baax muy ahibaul khadim li nusrati dinil khawim di mbollem cheikh si di mbollem section yi di mbollem ansarud din di mbollem jamaatul as sadiqin way di mbollem diaspora bi te ñi muy kurus gi nga xamne nosor nako nos bo xamne waxon na ne bo yëkëté benn per rek kurs gépp juk kon na kursuk ahibaul khadim Cheikh mustafa nee nañ xamne yitti fi Taif te ndigal loolu jox na ko ñëpp dogalu ci ngant kenn mi ngi ñaan nag sunu borom fépp fi waay mën a nekk sunu borom defal la tawféex ak xéewal yu yaatoo yaatu ak man ak fekk ak tal ban man ban mën a teewaat ci barab bi ba defe ko ni nga xam ne noonu la ko sëñ Tuubaa bëgge nee nag mi ngi ñaan sëñ bi nga xam ne bis bii moo nu ko digal moom mu xaadimu rasul ba noppi dignu ci digal googu mënu ko digal yàlla na nu defal defal tawféex ñu mën a jëfi ndigalam lool yi waaye na nu defal tawféex it lam ci digal lépp ñu ñëw ñu jot ca loolee. nee na nag mi ngi ñuy fàttali lam nu daa fàttali mooy képp kuy ñëw daal na nga laxasaayoo laxasaayu pas-pas ak positif ak fas yéene sellal moom daal pas-pas yi daal ak positif yi ak sellal gi rek la ñu laaj ak lépp loo xam ne bis bi laaj na ko te sëriñ bi diggee ko ci wax ne képp koo xam ne yaa ngi dundal bis bi loolee war na la nga def ko te loo ca man te dara tuutiwu ca waaye nag dara yéemuwu ca te mooy te la ci jiitu mooy teew ci bis bi waaye nag bernde ya ak lépp loo xam ne mooy dund ak eh, guddi gi eh, ca la nga xam ne moom la guddi gi laaj ci njàng maag lépp Cheikh Moussa nee na loolee kenn ku ne foo ne ko waajal te ànd ak loolee te ñëw waaye nag neen li bëgg daal nañ ci jiital pas-pas jital ci pësséef te sellal ko mi ngi laaj suñu borom mi nga xam ne jeexalu dara képp koo xam ne teew nga ci fii ak koo xam ne nga yéene teew te mënoo teew aaju yëpp rek suñu borom fakkee dara ji sëñ Tuubaa ñu ngi leen di nuyu ci tur Ahibahil Khadim li xawim ci yi nga xam ci ki nga xam la bi liggéey bi ci loxoom muy Cheikh Mamadou Lamine Bara ibnu Cheikh Mouhamed Mbacké nee na mi ngi woo mboolem jullit yëpp ci bis bi nga xam ne si nii mooy bisum gën di mbindeef di Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne képp ko am lu baax képp ko am ak leer lépp loo mën di am lu mu rëy rëy ci moom nga ko jëlee kon bisam la ñuy woote muy édition 2024 fii fi Taif mbakke fas yéene ko ànd ak sunu jëwriñ Cheikh Moustapha moom sëñ Mouhamed mbakke mi nga xam ne si moo woote liggéey boobu te muy rek loo xam ne si ni way juróom ba ak maam yi ñoo ko yéene woon fii fi Taif Mbacké kon Cheikh Mamadou Lamine nee na mi ngi woo mboolem ñi mu ko seqal juróomi regroupement yi ginnaaw boo xam ne si ni kon euh, sëriñ Ndiaye Guèye sëriñ Ndiaye mi nga xam si moo fi teebal sunu jàmbaar ja ñu ñaan yàlla yokk leeram waaye kon sëriñ Mouhamadou Mbaw mi nga xam si moo jiite ansaaru diin sëriñ Baara Lo mi nga xam si ne moo jiite jamaatul muridina saadixina wa saadixaat ak sëriñ Baara Sall mi nga xam si ne moo jiite diaspora ak moom mi nga xam si moo jiite regroupement bi nekk senegal muy section yi. kon sëriñ Baara nee na ni ko mu safaa wootee rek ñun ñëpp war nañ ko xam ndax woote nañ ko wooteti ko kon wuy siin wi ak nekkin wi ak màggalin wi ñett yooyu nee na ñu fas yéene ko fonk ndax ku woote ñett yooyu rek a tax nga woote kon teew mooy li ci jiitu boo teewee ba noppi def def ga mooy màggal ga. waaye booy màggalit màggalin wa kon ñett yooyu sëriñ Mahamadou Lamine nee na mi ngi ciy soññ ñëpp mu mel ni ñett yooyu nag sëriñ Tuubaa tënk na ko ci ñeenti bayit yi rek te mooy fa kullu man qad xadara mawlida afdalil wara muhassiman mubashira bi sukarin aw laxami fa innahu qad safira bi maa yudimul bushara wala yulaaxi darara yowma ijtimaahil umami fa man taaman hayaa liman law qad qara mubajjiran fa xaba xayraati ahlil himami képp koo xam ne teew nga guddi Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day di ko màggal donte ci aw yàpp wala suukar nga ko defee kooku day na xam ne tuufu na tuufu nag mooy am li nga bëggoon te du dajeeg benn lor-lor bis bi nga xam ne si mooy bis penc bu muy yowmal xiyam waaye bi nga teewee ba noppi màggal ko mu yaar yooyu bu ku waajal loo xëy na si ni danga nga koo waajal ñi fiy jàng moo xam ñiy waaj ñiy jàng ci màggal gi ci gàmm gi wala ñu fi liggéeyee nga waajal leen aw ñam kooku dina xam ne làq na ngën ji maanaam lu ñuy làq bis penc ba. kon nag yett yooyu donc ci lay ci la sëñ bi sëñ baara di soññe mooy na ñëpp fexe teew képp ku amul ngànt na nga teew fii fi Taif Mbàkke ci bis boobu teew gan nag bëccëg gi ak guddi gi lañ wax ndax moom la Cheikh Mamadou Moustapha wuutee ak ñu bari ndax guddi gam moom naka jekka mi ngi fi waaye ni mu koy defee nag mu wuute ñu bari te mooy yendu ci baas bi ba jant so nga dem waajaa dikkaat fanaan fi baasamaan set kon sëñ Mamadou Lamine nee na mi ngi soññe ci loolu nga xam ne Cheikh Moustapha naka jekk moom lay fas yéene def loolu sëñ baara nee na mi ngi ciy soññe kon ginnaaw teew gi ak màggal gi ak màggalin wi Cheikh Mamadou Lamine nee na mi ngi fàttali li nga xam ne si mooy sunu mandarga ñun ñëpp muy tanib ahibaawul xadim li nu sat di nga xawim te mooy col gu weex ak col gu baxa ci góor ñi ak ci jigéen ñi waaye nag mu doon lu jot sëkk rawati nag jigéen ñi ñuy sol sol sol gu jot sëkk te bañ a yaraax loolu Cheikh Mamadou Lamine nee na mi ngi koy soññ ñëpp kon nag bis bi mi ngi noonu gàmmu Taïf édition 2024 incha allah. mbokki jullit yi. bokki taalibe yi fu ngeen mën a nekk ci àdduna noo ngi leen di nuyu ci jataay bu tedd bii mal bis bu tedd ci sang su tedd si teew kàddu yi fi jaar niñ ko waxee bis boobu day fàttali boppam ci ngën ji bi def alayhi salaatu wasalaam noo ngi jël kàddu kon ci turu sëriñ Basiiru Jóob mi nga xam ne mooy kilifa section bii di ahibaalu xadim li nusrat dinil xawim bu section bu tayif mu di ko jaarale ci sëriñ Mouhamadul Fadilu ak soxna Muminatu di wo ñep rawatina képp koo xam ne aju ci section bu taif tay wax ashhadu an la ilaha illallah sëriñ Basiru neena mi ngi la ci wo di fatali nak tëni bi ak teway bi ak tewlu bi sëriñ Basiru neena na ko ñëpp bàyyi xel waye neena itam mi ngi ku ci ak ñaan tunu jambar ja sëriñ abdullah Makhtar Lo mi nga xamne mom la fi Basiru job mi wootu ci kaddom ñu jébbal ko section bi lolé itam na ko ñëpp fàttaliku waale ci ak ñaan waaye sëriñ Basiir wax na ni li nga xam ne mooy siyaara bi nga xam ne moom la ñu sëriñ bi baaxoo may at mu nekk bu ñu suba la gàmm nee na ko ñëpp waajal teyit képp kuy ñëw yitam nga ànd ak teewlu ba li nga xam ne moom la sëriñ bi wax mu dugg ci nopp yi xol yi dégg ko xel yi taatan ko tañ ko fas ko yéenee jëfe ànd ak sëriñ bi dundal guddi gi ci ni nga xam ne noonu la ko yàlla bëggee yonente bi bëgg ko sëriñ Touba bëggee ko noonu sëriñ bi di ko defee fii ñu ngi ciy woo ñëpp yéen ñi nga xam ne nag yéen dëkk ci section bu Taïf na ngeen yaatal kër yi te setal ko te ubbil gan ñi seeni xol ak seeni néeg te teral leen ànd ak jàng xasida yi ak salaatu ala bi ak tasbihaat yi ak askar yi loolu la sëriñ bi woote bañ dégg ne sëriñ bi joxe na ndigalul yewwi ko nu yewwi ko dellu ca yitte waaye li feeg loolu amul daal Serigne Bassirou ne nag kenn ku nekk naga nga déglu ndigal ca kilifa ga la jiite lépp lu mu lay wax tam jëm ci liggéey bi rek foofa la sa gammu nekk nee na mi ngi ciy woo ñëpp bayiwul kenn bayiwul fenn bayiwul ñenn. ñoo ngi ziare ñëpp ci kaddu suñu jëwriñ suñu soxna Mame Bousso Mbacké mi nga xam ne moo jiite Ahibaahil Khadim li nu dina xawim ci jigéen ñi di suñu jëwriñ ci kaddam la waxee di woote ci bis bu tedd bii di bii di sub gàmmu soxna Maam Bousso neen nag mu ngi sant jigéen ñi bu baax a baax ci bis bi ñu jàll muy Ashrina Muharram ci seen taxawaay di jiital ci cant gi rek sëñ Moustapha Mohamed mi nga xam ne mooy moo waral lépp waaye nag di sant Cheikh Mouhamadul Amin Baar mi nga xam ne moo jiite section yi cant goog yi di ko lawal ba ci soxna Mominatou Mbacke mi nga xam ne noppal na ko ci lépp ne di ko sant bu baax di ko ñaanal yàlla euh, dëgëral ko ba lépp lu mu bëgg a liggéeyal Serigne Touba mu defee ko na mu ko bëggee te ñu ànd ko ak mbooloo mi yëpp. waaye cant googu nag di sant moo mboolem présidente yëpp nag yi nga xam ne ñoo nekk ci section yi soxna si neen mi ngi leen sant bu baax nag te di leen woo ci bis bu tedd bii di bisub Seydina Mouhamed ndax xam ngeen ne Ahibahil Khadim ñu sotti dina xoyul di ko sëriñ bi taxawalee ñaari bis lañu soññ ci ñu di ko taxawal muy bisub Ashriina Muharram ak Mawlidu Nabi sallallahu alayhi wa sallam bis boobu nag Mawlidu Nabi googu moo tax ñu koy woote fii ci Taif di soxna si nee na mi soññe bu baax a baax ci ñetti mbir bi ci jiitu mooy teewaay bi teewaay bi soxna si ne ñu ngi koy soññee bu baax rawatina ci section yi ñi nga xam ne dañuy jóge ci yeneen dëkk yi euh, ñëpp ñu ngi leen soññ ñu teew nañu teewe woon ci Achoura Muharram war a ñu teew ko teew boo xam ne ni moo gën a yembati ndax sëriñ bi fii la ko woote ci taay moo tax bëgg nañ ñëpp fekk ko fi nañ ko defee woon ci Touba ñu defe ne ko fii ci taay soxna si moo tax ne mi ngi koy woo ñëpp képp koo xam ne ni euh, présidente nga na nga soññ sa mbooloo ñu ñu laxasaayu nañ defoon ànd góor ñi ak jigéen ñi mag ak ndaw buñ bàyyi kenn ca kër ga ñu teew fii ci Taif kon soxna si ne mu ngi soññee ci teewaay bi bu baax a baax bi ci topp mooy bernde kenn ku wax ku wax gàmm wax wax bernde te bernde li ci li ci li ci sëriñ bi wax li ñu ci sëriñ Tuubaa wax ci jasbul kuruub looloo tax na sëriñ soxna si di ko soññee bu baax a baax foo mu waxoon ne fa kullu man anfaqa fii mawlidihil musharrafi maalan bi xayri sarafi walaw bi xadri dirhami dana walaw bi xadri dirhami donte ab dërëm la nga dépensé ci bisub gàmm suñ borom dina dina mel ni def dala defal yow nga mel ni ku teewee ci ñaari xare yooyu muy xunay ni ak badar tax xare yooyu mooy xare yi gën a màgg ci lislaam looloo tax na yiw woowee suñu soxna maam bu so yéene ko mbooleem képp koo xam ne ni ab jullit nga rawatina ko bokk ci Ahibahil Khadim di sàkku ñu teew waaye di sàkku ñu bernde ci bis boobee bernde boobu nag la ca jiitu mooy alquran ax xasida ndax xam ngeen ne Sëriñ Tuubaa lu ko waay di defal alquran moo ci jiitu lu ko waay mas a jox tegal foofu lay wax waaye bu dee alquran ñaari loxoom loxooy koy nangoo looloo tax na soxna Mame Bousso nee na ñu ngi soññee ci alquran ji bu baax a baax a baax a baax ci section yi képp koo xam ne Euh, man ngaa jàng alquranul karim na nga ko def loo ca man rek na nga ko def koo xam ne nii mënoo jàng nga tama tama ne jàngalu na nga jàngalu nañ ko defee woon ci anshurul muharram macha allah jigéen ñi jàmbaar lañ ci woon lool noone nag noonu kaamil yu bëri yooyu nga xam ne jàngoon nañ ko ci anshurul muharram lu ko raw la bëgg ñu def ko ci mawlid nabi ji xasida yi kasaayka xasida gu waaye man rek na nga ko jàng te boo ko jàngee nga fexe ba euh, mook alquran ji loo ci jàng ñu jot ci te buñ dikkee nañ jubali ca baas ba ndax ca njàng ma foofu la dañuy bañ dañuy bañ ñu dikk ñu no toog ci dal yi di xaar ba guddi waaye kay saa ku dikk soxna si ne mi ngi soññee nañu yendoo jàng ca ca ca baas ba fanaane ko tàmbali ko ci bismillah rahim eggal ko ci alhamdulilahi rabbim ngeen jëf mbokk yi kon woote baa ngi noonu ay mbokk yi nañu bàyyi xel ni barab bii ñu nekk tey ci Taïf fii la Serigne Touba Serigne Saliou ñëwoon ci barab bi fekk si Serigne Mbacké Mouhamed ñaanal ko ba noppi génn doxal boppam ci buntu kër bi ba tolloog fii nga xam ne fa la sëñ bi dalloo tey muy sëñ Mbacke Mouhamed diggante boobu nga xam ne ci la doxee woon nag fi la ñuy defee gàmm gi te moom mooy ki nga xam ne maggal gu nekk daana wax bu waxee màggal ba noppi teg ci taxsimuhu bi sunnati loolee nag gis nañ ni moom sëriñ bi doxal na ko bu baax a baax a baax waaye fa mu doxee woon tànk ci diggante bi waaye nag fi ki nga xamante ni mooy doomu ju tedd ji mooy Cheikh Ahmadou Moustapha fii la koy dundale dundal goo xamante ni yéem na ñëpp ndax yendoo ko fanaane ko loolee moom ku ne daana gàmm waaye fii ci Taïf rek nga koy gisee kon ñi ngi ñaan képp koo xamante ni mi ngi bàyyi ko fu mu de a doon yàlla na dem ci jàmmu dikk ci jàmmu ak fu mu mën a bàyyi ko te delluwaat ci jàmm di sant nag bu baax a baax mboolem ñi nga xam ne ñoo ngànk liggéey bi rawatina sëriñ Cheikh Mbacke Dieng mi nga xam ne mooy coordinateur bi di jàmbaar lool ci liggéey bi ak mboolem ñu ngi ko seqal kon mbokk yi bis baa ngoog woote baa ngoog yàlla ñëpp ñëw ci jàmm wasalaamu aleykum wa rahmatullahi